bi ñuy woote budget euh, Kër Massar bi lañ ko interpellé moom monsieur le maire ci kanamam xamal ko ne ko ci marché Kër Massar yi euh, aynu maat yi gis nañ fa loo xam jaaxal nañu parce que 2015 woote nañ fa ba euh, nañ fa 30 millions ne dañuy réceptionné hangar yi gisuñu ko 2016 ñi woote fa 22 millions ngeen di ko ñi woote 22 millions

mu indi arrêté arrêté travaux yi fi nekk nous ci ñun ñu le euh, monsieur le préfet la ñu waye démé ba ci biir démé ba ci biir ñun suñu biir ñu waxtaan nañ ko nga nga arrêté bëgg itam mu parce que ben table tous ñi nga xamné kenn ku ci nekk sa kër sax artunu loko ngay kër kër fi jëndé ko euh, kenn xamu ci conseil municipal yi. duggul ci poosu Kër Massar muy eh, pep secteur bi jotu ko dama ne bëgg nañ cantine yi leer xaalis bi ci boppam dugg ci poosu Kër Massar bindu ko loolu leetal man ak mu eh, deuxième adjoint bi ñi dellu demaat fa ba ñu fa demee mënuñu sax bi soobee yàlla danaa jox gendarmerie pour mu defal ma rapport. lu ñu bëgg mooy xaalis bi fi ne ñi leeral ko mu dugg ci normalement mën na cent million jigéen ñi nga xam ne ñoo ko fa def ñi mën a am ay kayit yoo xam bu ëllëgee maire bu fi mëna ñëw ak ku mu mën doon da nga leen mën a ñi mëna nekk seen tranquille pour mëna liggéey maire bi li fi doxal li fi doxul bari na parce que tay am nañ problème mu fowukaay yi nga romb ci yoon bi bi ngay ñëw ni tay fam ko def insécurité totale mo fa nekk parce que bañ ko fay def itam encore ma xamale na benn conseil municipal yëgu ko ken yëgu ko du bureau municipal bi du conseil municipal yi tekki encore tey am na lu mu yokk ci dëkk bi ndax ci diggante ñaar tali la nekk xale yi bu seeni morom yu duggee ñi seen seen yeneen morom yi amul paas dañuy ñëw jàpp ci crintin yi da taxaw léegi accident mën na fayam ci amoon na fi sax ci temps yi la passé waa mais du ñu dàq dara sous-préfet dinañu wax ci ban base légale la teg li nga xam ne moom mooy doxalinam bi moom moo jël ci kaw sukkandikuwaay yu mu am arrêté 846 bi nga xam ne Euh, sànq monsieur le maire Mounirou Kane wax l'italien qui était là du temps de Mbacké Diop il s'appelle Perna Massimo Perna Massimo bobo monsieur le maire moo nongu ci instrument juridique muy arrêté li nga xam ne moom construction bi mu def lan la argué lu mu ko layale mairie du bàyyi ay jàmbur ñuy tabax ci li nga xam ne moom ab sañ-sañam mais ci moment boobu sous-préfet Omar Dia dafa ko wax ne ko loolu nga wax noonu te muy dëgg ci kaw yoon pourtant moom nga jël arrêté Bobu daal di joxe holding Kafao kon man dama lay wax ne la ni nga constaté woon ne irrégularité amna ba tax nga nangu ko non la waxee ne la def nga irrégularité ci jox holding Kafao na nga jël nga nga arrêté travaux yi le 14 mars Moussa servir ko arrêté d'interdiction sank monsieur le maire Mounirou Kane effectivement le 28 wo nama le 28 juin. 9h45 8 minutes 37 lañ waxtaan mak mom. lan la doon sakku? mën lever interdiction ou, bi nga xamné ne mo am ci marché Aïnou Madi. Mané ko sous-préfet man mënuma la conseiller dara yow yaay le garant de la légalité yaay interpréter loi mais xamal na la né lepp lo taxawé jël ko vous le faites en toute responsabilité maire lu mu jël puisque né nga ma da nga yaakaaroon ne amul woon fu mu teg tànkam mais moom après wan na la para protocole bu mu parafe signé ko bu faites effectivement le 25 mu nous ñu wax entreprise il le fera en toute responsabilité Ce c'est des éléments qui dinañ ci dox jëm dem ci attaquer devant la chambre administrative de la cour suprême nous hein, commettre avocat bo conseiller ñu attaquer li nga mu def sous-préfet parce que lu mel également ci chantier chantier Castor Sotrac Castor Sotrac marché le maire Diop marché ordinaire mu am une société qui Artec avec madame Amina Anne Artec a am problème avec Diop le contrat en 2014 Artec a a préfet Abdul Aziz Diagne servir ben arrêté sur les chantiers de Aïnoumadi Madi daal 9 ne de yem euh, de de Castors structure moment projet changé nañ structure projet bi marché ordinaire mais limuy nek moy centre commercial bo xamné des day am parking souterrain day am rez-de-chaussée à deux niveaux et le projet changeant de structure jogé na ci ay dizaines de millions dem ci un milliard yu tek té lolu maire yëgalu ko bureau municipal maire yëgalu ko conseil municipal le sous-préfet mo arrêté d'interdiction bi bu ko ça aurait passé et aujourd'hui sans délibération jusqu'à présent pour encadrer loi bi nga public privé sans délibération sans aucune forme administrative bo en tant que bureau municipal cet arrêté a été levé d'interdiction sur Castor Sotrak. et par qui par le sous-préfet Oumar Dia encore